ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi de khalat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. té nak dañuy wax ci ciolu jip fan yi ci ay centre yo xamanteni Serigne Modou Kara moko fi tek té gendarmerie buñu ñu sukkandikoo ci seen communiqué ak élément yi nga xamanteni mettre nañ ko à la disposition du public fekk nañ fay prison privée fekk nañ fay tam ay cinébar buñu jot see tek loxo lu tollu ci ñeen fukki doomi adam ak ñett. daañu leen tegtal intervention colonel Pape Diouf gannaaw buñu ñu mënee opération bi avant ñuy camper le sujet depuis lors nag intervention yaa ngi jibee fu ne bari na ñoo xam ni ci commentaire yi ñoo ñu ci doon interpellé ngir ñu wax ci parce que aussi xëy na bëgg lañ xam wala am lu leen gën leer ci mbir yi te ñun lañ ci yaakaar ñun jaam xeebu yi nga xamante nii yoruñu le monopole de la vérité lu dul di joxe suñu xalaat ci ay événements yi xew ci réew mi di sukkandiku nag ci ay fee donc dafa am ñoo xamante nii lu mënti xew ñun la ñuy xaar balaa ñoom ñu ci jël position té loolu sas wu reuy la ba taxna na saa yu ñuy wax rek bëgg nañ baña wax rek suñu bakan bëgg nañ baña par parlo bëgg nañ itam bu ñu mu doon lu neew lo xamanteni dañ ko mëna bal des fois nga def sujet am ku lay déglu gën la maîtriser fouf li ngay wax té loolu bokk na ci li ñuy gëna bayyi xel ba tax lepp lu ñuy wax rek dañ koy gëstu ci fànn wu ne bala ñu ci addu ngir baña wax lu ñuy xébé mu am itam ñeneen ño xamanteni am ay combat personnel yo xamanteni ñu ngi koy mëne

nous nous ñu arrêté Nous kenn duñu pression kenn duñu manipuler pour ñu wax fait wala yow nga amno bëgg a ak doomi ci yar ak waroma di sakku nak ñun ñu ko comme yow ni ko ñun nak doxun ci ndax sénégalais yi ñu waxal di déglu du dof donc li di xamal chaîne duñ ci lablé duñ ci fay bor duñ ci régler compte duñ ci sa combat personnel lu dañ koy préciser lu fekk sénégalais bu ñuy néewal doole ñu def ci taxaw sétlu porté combat bi def ko suñu fi bop ba sénégalais yépp a xam ni kii kat dañ ko togn loolu lañu bëggoon leeral d'abord balaa ñuy avancer pour ñi nga xamante ni chaque fois dañuy essayer di ñu manipuler te ñun xam nañ leen tax jóg pour wal leen ni duñu ñoo xamante nii dañ leen di teg pression wala wax loo leen loo xamante nii yow loolu nga bëgg dégg bu ñu ñëwee ci centre yi nga xamante ni sëriñ Modou Kara teg na ko pour ne dafay jubbanti yenn ci ndaw yi nga xamante nii dañoo jël yoonu bon moo xam ñu doon ay bandi wala di jëfandikoo seeni bar wala sax ñoo xam ni seeni xel neexul seeni mbokk mënatuñ ci ñoom dara dem yóbbu leen ci yooyu daara yi nga xamante nii sëriñ Modou Kara moo ko fi teg lu tax ñu teel ci àddu mooy dafa amagum ay mbir yoo xamante nii daf ci leeragum déjà donte enquête baa ngi woy loolu benn la ñaareel bi mooy du n'importe quel corps moo mën a opération bi muy waa gendarmerie loolu ñaar la ñetteel bi mooy colonel Pape Diouf bi nga xamante ni moo jëbal mbir yi du n'importe qui biir gendarmerie ndax ci parcours am mëne na ay opération yu am am solo pour askan wi donc mënuñu leen féliciter démb ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni ñu ko doon amal ñu daan ko publier seen page Facebook ñëpp di ko rafetlu tey ñu bëgg leen a xarab loolu aussi nañ ci bàyyi xel te ñun sénégalais yi tamit ñu cohérent ak suñu bopp.

donc cité Mamel euh, ngir euh, ñuy set ben scooter bo xamantene ne ni euh, borom dafa ñëwon déclarer né dañu ko sacc ci section de recherche biñu fa démé nak fekk nañ fa scooter boobu nga xamné dañu ko saccion ak yeneen ñetti scooter yo xamantene ni dañ leen saccion seeni borom déclarer ko ci section de recherche ñu leen di set fekk nañ fa tamit Euh, Yenin scooter yo xamante ne euh, dañu ko def ay pièces détachées euh, ci yenn responsable yi nekk foofu itamit am na ci koo xamante ne nii dañoo fekk fi mu nekkoon ay paquet de chanvre indien lu toll ci mooy yamba lu toll ci ante dafa jot daw dem laxu ci kër sëriñ Modou Kara Euh, nga xam ne doom ji euh, ginnaaw si moom moo ko delloo siwaat jàpp ko indi ko section de recherche ndaxte commandant de section de recherche euh, daf ko digal ne ko nañu ko indi bi loolu weesoo ci dëkkuwaay boobu nga xam ne fa la ñu fekk scooter yi ñu sàcc ak yàmbaa bi dañu fa fekk lu tollu fukki fukk ak juróom-ñetti gone yoo xamante ne nii euh, ñu ngi am euh, fukk at ak juróom-ñaar ba jëm euh, ñoo xamante ni am nañ ñeent fukki at ak ñaar waaye lii yéeme ci mbir moomu mooy ñooñu fa ñu nekk dafa mel ni maanaam dañu leen Euh, maanaam di leen euh, di di leen toroxal boo gisee ñi nga xamante ne nii ñii dañu coo am ay gaañu gaañu euh, ñii feebar ba mënatuñu dara tëdd ñii boo leen xoolee sax da ngay am yaakaar ne njort ne dañoo tàggox seen sago tellement li ñu leen tëj foofu ah li ñu leen di mettital dafa maanaam wëlbati seen xelaat donc ñoo ko déggandoo moom colonel Pape jouf te li ñu mën a tënk ci ay kàddoom mooy ba ñu defee descente ci yooyu bërëb fekk nañ fay doomi aadama yu ñuy fitnaal di leen torturer fekk nañ fay itam sinébar pour centre woo xamante ni dañ ne li ko tax a jóg mooy jubbanti ak yar comme niñ ko bindee ci miniature vidéo bi jàngatu tey bi li ko tax a jóg mooy wax liy dëgg ci mbir mi maanaam situer les responsabilités d'abord benn tàmbalee ko ci sëriñ Modou Kara donte nekkul koo xamante ni tout le temps mi ngi ci yooyee centre ngir xam la fay xew lépp ak ñam fay bàyyi anam gi ñu yore xale yi mais comme comme moom moo ko créé mooy seen kilifa moo leen boole njaboote lu fa mënti xew rek balaay joxoñ kenn xel yi ci moom lay njëkk a dem ndax ñi génnee ci centre yooyu noonu defaru doon ay nit yu baax te moonte ay bandi lañ woon intégré wu ci société bi ñoo xamante ni seen i njaboote leen bàyyi woon société bi gedd leen kan lañ naan moo ko liggéey dañ naan sëriñ bi moo ko liggéey daan ci ñëw parce que ñu nit du ñu jël lépp rek sànni ci àll ba comme ni ko ñeneen ñi di defee am na ñu fa génn baax comme am na ñu fa dugg ba génn fa te soppeekuwuñu wuñu mais lu mënti am bu ñuy laaj ka yi lif ñoom ñëpp la ñu njëkk a xalaat loolu moo waral ëllëg yowal xiyaam ki nga xamante ni njabootewul benn doomi aadama kooku du yem ki nga xamante nii doomi aadama yi dañu tënku ci moom di ko tarbiyu te lu mu leen wax ñu def buñ ci noppee ñu ñëw ci responsabilité état parce que ñun personnellement dañoo étonné wu am nañu bett lool ba ñu sénégalais yo xamanteni dañuy faire semblant dañuy melni ni ku xamul comme si que mosuñoo yegg ni Serigne Modou Kara amna ay centre yo xamanteni néna nee xalé yi moko ko jog alors que ñi wax lool noonu tàmbalee ko ci état Sénégal xam ni depuis 15 ans Serigne Modou Kara créé na ay centre yo xamanteni yar moko ko jog ci ay gox yu wute ci biir réew mi loolu ñun ñëpp xamoon nañ ko état bu Sénégal xamoon na ko ak lay xew ci biir parce que ku ne xam ne réew mi dafa am ñu ñuy wooyee ay renseignements généraux ñoo xam ni parfois ñu déguisé wu ba doo leen xàmmee ci biir doomi aadama yi ñuy infiltrer fépp foo xamante ni ay doomi aadama ñu ngi fay dajaloo ak groupe yoo xamante nii dañ ci am ñaaw njort pour mën di xam la fay xew renseignements généraux yi ñi ngi sax ci biir këru diine yi comme ay taalibe alors que seen liggéey mooy chaque jour ñuy bind ay rapport ci dugg beeg génn bi ak lañ fay def ba ci ñun vidéo yi nga xamanteni ñu koy def chaque fois renseignements généraux yi dañ koy sétane di ci def ay rapport ngir bu ñu juumee boo wax loo xamante ni dafay taal dëkk ñu jublu suñu mbir donc amul dara lu leen ëmb ci biir réew mi léegi naka la état à travers les renseignements am sàgganee ba ñu ni mel di xew ci biir réew mi depuis plus d'une quinzaine d'années té mosuñ ci wax centre yi mi ngi exister depuis plus de 10 ans mais activité yi Serigne Modou Kara mi ngi ko tambalé def depuis 1995 té lolu état yi nako nguur yi fi mës a jaar yëpp xam nañ ko te kenn musu cee wax kenn musu koo régler lan moo ko waral loolu daan ci ñëw te mooy nekk transition bi ñuy permettre ñu aborder manipulation bi nga xamante nii gis nañ ko ci biir dossier bii nii te mu tey suñu xel te itam xelu sénégalais yi nga xamante nii ñu ngi suivre mbir yi te newuñ di parparloo lenn li ñu gën a marqué ci mbir yi mooy torture ak prison privée yi nga xamante nii wax nañ ni fekk nañ ko ci biir centre yi côté boobu ñun du ñu def comparaison comme ni ko ñenn ñi defee ak lii xew ci prison sénégalaise yi parce que ñu bari ne nañ lu ko raw moo xew ci biir kaso yi moo xam ay paquetage lekk bu bon dóore ki nu mel loolu ñun ñëpp dañ ko yàgg ñaawlu mais duñ ko comparé ak centre yi nga xamante nii jubbanti doomi aadama yi moo ko tax a jóg lan moo tax parce que ki fi samp centre yooyu noonu di Serigne Modou Kara kilifa diine la ñun liñ doon xaar mooy bërëb yooyu am beneen xaar kanam bu bokkut ak li ñuy gis suñu kaso yi su ko defee ñu koy mën di filmer di ci def reportage wan état bu Sénégal ne leen nii la ñuy corriger doomu aadama bu fekkee ni dafa jàddu yoon parce que ñun ñëpp xam nañ ni suñu maison d'arrêt et de correction yi yi nekk Sénégal yépp dañoo échoué seen mission ndax li leen taxu jóg mooy doomu aadama bu defee njuumte dañ koy jàpp tëj ko ngir mu tëdd benn pen waaye tam ci diir boobu noonu ñu daal di koy yar ñun ñëpp xam nañ ni suñu kaso yi dañoo échoué ci fànn woowu noonu kon waruñu jël comparaison ci ñoom parce que état bi dafa échec. suñu prison yi képp ku ci dugg bu la yàlla dimbalewul booy génn di nga yées ni nga meloon kon ku mel ni sëriñ Modou Kara bu jëlee initiative ne dafa yar ay ndaw ngir réussir ci ñoom li nga xamante ni état moo ko waroon def mais échoué war na gën a bàyyi xel anam gi ñu yoree xale yi foofu noonu ngir wan état bi ne leen yoon wi fii la lii mooy modèle bi nga xamante nii moom ngeen war a topp ñun àndul ci torture parce que ay xol lañu yor amul kenn ku gis vidéo yi te sa yaram dawul bu dee ni doomi aadama kese nga kon war na am beneen approche bu bokkut ak ay dóor fitnaal ndax bu ñu xoolee li xew ci yeneen réew réew yi nga xamante ni seen état moo créé ay centre yoo xamante ni yar moo ko tax a jóg bërëb yooyu noonu dañ koy fekk ay psychologue ay acteurs sociaux ak ay médecins yi nga xamante ni ñooy taxawu ñi nga xam ni dañoo dévier te soxla ndimbal dañ leen di jubbanti te duñu leen dóor du leen wax wax ju ñaw duñ leen ñàkk warmaal kon ñun yu mel noonu lañ doon xaar ci bërëb yi centre yi nga xamante ni sëñ Modou Kara teg na ko fi ñu boole ko nag ak li nga xamante ni moo fa am ci lu baax parce que centre yooyu noonu comme ni ñu ko waxee sànq am na ñu fa génn baax ñoo xam ni société bi daf leen gëddoon seeni famille abandonné leen ñu génn ci yooyu centre defaru parce que am na jàngalekatoor Quran yi fa nekk pour que bu ñu paree ci ndaw mi ba mu tuub bàyyi yu bon yam daan def ñu xamal ko diineem mu xam fu muy teg tànkam. dañuy fexe ba mu mën a demal boppam bu génnee ci wàllu lecture alxuraan mën a jàng alxuraan bu ko neexee mën a xam itam nu muy jullee ak ni muy jëflante ci wàllu diineem euh, yemuñu ci maanaam ñi nga xam ne jotoon nañoo jàng am as lëf ci jàng ci xam-xam bu ñu ñëwee dañuy fexe ba jàngal leen. téere yi nga xam ne dañuy jàngale ci wàllum maanaam euh, euh, fiq lu mel ni fiq mooy maanaam droit islamique li nga xam ne noonu lañuy toppee yàlla loolu yëpp mi ngi fi rawatina itam téere yi nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul comme mooy suñu wasila téere yi nga xam ne def def ko bind ngir ñu koy jàngal xale yi lu mel ni tasawudu sixaar lu mel ni nax jul xadaayal xaaj yi nga xam dafay jàngale ci wàllu éducation leen di jàngale ci wàllum euh, jaamu yàlla loolu lépp dañ ko fi jàngale yemuñu ca dañuy jàngale fii ay xasida xale yi boo gisee boo déggee son boobu ngay dégg si suuf xale yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy jàng ñoom ñooy daaj ñooy kuréel ñooy jëf lépp fii nag as bu ne bu fi ñëwee dinañu mën a dinañ ko mën a jàngal ci na mu waree ki ngeen deglu ni benn oustaz la bi nga xamante ni bokk na ci ñi jàngal ndaw ñi alquran gannaaw ba ñu waatee ni bàyyi nañ lépp lu bon ki itam beneen yaay booy la boo xamante ni dafa amoon ñaari doom Ousseynou ak Assane yoo xamante ni benn moment ci seen dund seytaane mën na leen ba ñu jël yoonu wu safaanu moom en tant que wajur bu jigéen ñu yebal ko ci benn centre yi nga xamante ni sëñ Modou Kara ko fi teg mu yóbbu fa ñaari seexam yi ba gannaaw gi am na ci lu ko neex. ma gisek waa kuréel bi ñoom pap Diop ak ñoom euh, Dieng. ñi ma yóbbu ko ca euh, sëñ Modou Kara ñi daan ma ko yóbbu ca sëñ Modou Kara am nañ fa fukki ak ñaar kër sëñ Modou Kara wax dëgg yàlla ba mu leen yóbboo daal man ci laa gis changement ma ne ay waay lii de yeex naa ko yeex naa ko xam lool sax ndaxte gis naa fa changement lool lool lool lool lool lool lool bi euh, tabaski ay événement yooyu yëpp dana ñëw demaat bu mu dikkee jàpp julli sol seen yére yi set kor nekk correct correct bay bëgg dee. donc yii tamit ay mbir la yoo xamante ni buñ ko wax doomi aadama yi surtout bu genre coow yi amee dañuy fàtte lépp lu baax li centre yi defoon alors que am na ñu mu defar am na ay wajur yu ci gisoon seen bopp tey bari na ci ñun ñii ñu ci xam ay jeunes yoo xamante ni dañu nekkoon ci yoon bu bon doonoon ay defkat mais bañ leen yóbbee ci yooyee daara la ñu defaru kon booy def jàngat sotti fànna woowu noonu da ngay manqué objectivité da ngay dugg ci ay règlement de compte waaye itam dangay dugg ci manipulation lenn lañ xam ni ànduñ ci te duñ ko mës a cautionné mooy torture yi ndax jàpp nañ ni magub jëmm waxtaan ak moom delloo si ko moo ko gën a amal njëriñ ay dóor waxtaan woowu lu mu mun régler ci moom du ay dóor moo koy saafara te foofu la ñuy ñëw ci responsabilité état bi maanaam naka lañu ñu sàgganee suñu réew ba jëf yu nu mel di am ci biir réew mi depuis des années te mosuñ cee wax te xamoon nañ ni am na naka itam la état sàgganee ba créewul ay bërëb yoo xamante ni c'est des centres sociaux parent bu ci am lu la naqari ci sa doom moo xam dafa dugg ci wàllum banditisme wala dafay jëfandikoo sinébar wala xelam ëlbatiku ngi mën a dem ci yooyu centre yoo xamante ni état moo ko fiy teg ngir wut si solution. dañu ñëw d'abord ci li gën a nekk problème actuellement ci Sénégal ak jeunesse bi muy mbiru sinébar jeunes yu bari léegi ñoo ngi ci tuxum yàmba ak jëfandikoo yeneen xeetu drogue léegi lan moo tax waajur yi bu ñu nemee ko yu ni mel ci seeni doom di dem ci ay daara yi nga xamante nii état reconnaître ko lan moo ko waral bi ñuy def vidéo bi nii dañoo def suñu recherche ci ban politique la état bu Sénégal teg pour jàppale ñi nga xamante ni ay victimes lañ parce que ñun ñiy utiliser Sinébar ay victimes la lañ jàppee lu tax ñu wax loolu parce que Sénégal pour xeex mbirum drogue ni muy def moy day japp ñu koy utiliser consommateurs yi tek leen ay metti bay nga dealer yu mag yi ñi nga fi yamba bi ñoo fi drogue dur bi ñoo fi cinébar problème li le mal def en 2018 Sénégal 4 addict, kese la manam ay médecin yo xamanteni nii seen liggéey taxaw cinébar te mënuñ ko parce que mais Sénégal ñeenti de kese la en plus suñu réew benn centre bu mak lañu disposé taxaw jeunes yoy nonu né hôpital fan. centre Bobu, mënul jël les milliers de jeunes yi nga xamanteni dañu accro ci wala yeneen centre bu ndaw la. un ñoñu qui seeni wajur buñu jaxlé ba xamu def dégg ni Serigne Modou Kara créé na centre ngir taxawu ñu dañ parce que ba xam xooluñ ba xam fofu am na ay psychologue wala ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci mbirum prise en charge ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo cinébar lan moko waral parce que état bi dafa échoué ci naka lay taxawaay ndawi réewam ñoo xam ne yu bon wala influence dugul na leen ci déviance mo xam ñu jëfandikoo trop wala ñu def ci fi banditisme wala seeni xel neexul état amul benn politique bu mu teg pour catégorie doomi aadama yooyu noonu nga xam ni société bi daf leen gedd la plupart seeni famille wala leen ginnaaw dañ leen di rek jox benn misaal ci échec gu état Sénégal ci fànn woowu Ansoumana Dione dafa partagé woon fan yi benn vidéo femme boo xamante ni xelam neexul mu nekk ci mbedd yi ak benn doomam góor waaye tam benn saay-saay yegg ci kawam ba mu toll ci diggante femme bi nekk ci mbedd mi comme ni ngeen koy gisee ci image bi nii ngeen yaakaar ni réew muy sàmmoon teg àq fi yelleefi doomi aadama dina seetaan jëf yu nu mel maanaam même ñi seen xel neexul dañu leen bàyyi seen bopp bàyyi leen ci mbedd mi bàyyi leen ak saay-saay yi ñu ñëwaat ba tey ci responsabilité état ak coow li juddu fan yi ndax lu bari ñu ngi koy reproché Serigne Modou Kara ñu bari àndu ci lan moo tax sax ñu koy wooy général mu am ay soldats yoo xamante nii ay colonel la leen di wooyee alors que ñun Sénégal am nañ armée am gendarmerie am police mais lii lépp li ko waral mooy état boo xamante nii lépp lu muy def ay intérêt politique lay jiital d'abord mais pas intérêt général tey lépp li doon xew ci daara yi nga xamante ni sëñ Modou Kara teg na ko fi lépp président xamoon na ko suñu renseignements généraux yi xamoon nañ ko ministère de l'intérieur xamoon na ko mais mosuñu koo jéem a régler parce que Serigne Modou Kara dafa am mbooloo ñi ngi sóoraale taalibe yi nga xamante ni ñoo topp ci ginnaawam taalibe yooyu mën na lañ ñàkk votel bu élection amee ndax bu leen fàtte ni élection présidentielle bi weesu Macky Sall dafa àndoon ak Serigne Modou Kara def cortège ngir def campagne kon état xamoon li xewoon li lépp ci mbir yi mais dañ na patt parce que ñi ngi sóoraale ay mbiru politique kon bu ñu xëyee tey mbir yu mel ni sulleeku comme kenn mosu koo yëg nañu posé wu la question lan moo xew ci diggante Macky Sall ak Serigne Modou Kara ndax mbir yi mi ngi tombé ak ban période bi Serigne Modou Kara defee sorti ay weer ci ginnaaw doon sàkku Macky Sall bàyyi gi Marius Sagna Serigne Modou Kara dem bay ak Macky Sall ak gaynde bu tëx. ndax itam nag li moom makkee ko moom li may wax ndax itam nag bu ñu fi bàyyee Sénégal yépp ni ñu toll ni la coppet ni la jiite dëgg la japp yag na fi jappé japp nañ fi wàlliyu japp fi serigne japp fi cheikh comme ni ñi jappé bandi ak wayu ku na xam na ne Macky gaynde gu tax gaynde gu tax na ñaare bu jigen ba bu fekkente ni buruwee ngi ñew te geesuwul déggul buruwi bi bu jigen ba bi taxul wara kobas pour mu xale bi tax ñuy marché tay comme ñañu ko jappandolon bàyyi nañ leen ñu ko bayé du leen wañi dara ñom <laughs> du du du du leen jura ben faiblesse ah ñom ndax ñom baxo nañ di wax euh force toujours reste à la loi nangam ak nangam baxo nañ di wax yoy wax deug yalla léegi nak makki na gelo ci xelam te fatali ko li yalla defal li ben la ci ay sorte ci Modou Kara am na yeneen yoo xamante ni itam mu ngi doon dal ci nguuru Macky Sall te ku xam Macky Sall di nga xam ni du bàyyi weer ñaari fan dafay fayantoo doo ko gaaral ci ay baat wala di ko défier mu bàyyi la noonu déedéet boo bokkee ci moom wax lu ko arrangé wul dafay teggi sa ndombal tànk dàq la bu fekkee ni jox la ndombal tànk ngay xajamal nguuram dossier yi mu dëgg tànkam da koy sulli Macky Sall xeetu politique bii la am dafay defante te du ci boole wax ju bari té wax nañ leen ci njëbeen vidéo bi dossier bi nii dafa am lu ci nduru manipulation ndax bi ñuy waajal jàngat bi dañoo jot ci benn vidéo muy ab waay boo xamante nii dafa ni yaay moo ko yóbboon ci benn ci centre yi nga xamante ni sëñ Modou Kara moo ko fi teg parce que dafa doon dox yamba mais nee na bi mu duggee ci biir centre bi dañ ko fa daan jaay yamba bi tax ñu yóbbu ko fa sama yaay nee na ma damay dox yàmbaa quoi moo tax mu yóbbu ma foofu pour redressement vous avez fait combien de temps là-bas 23 mois là-bas 23 mois waaw mooy ban mooy ban ban période nga fa dugg 2019 laa ko dugg xaw ma 2018. 2018 xaw ma xaw ma doo sax kañ waaw gis nga. te ba ma ñëwee foofu yàmbaa ma dem tere ba ma ñëwee foofu doomu colonel bi moo ma ko dem jaay. doomu colonel moo doon jaay yàmbaa ci ma jaay benn lax si poone téeméer dama jaay paka yàmbaa bi à 2000 francs. paka yàmbaa 2000. 2000 francs te si biir 1000 francs jar poone juróom lay jar si mu lay jaay paka du poone. 500 laxasu poone 500. laxasu

fekkee nañu rey fay doomi aadama yu bëree bëri. am sama kanam ay cinq évasion ba pare seize personnes dee sama kanam. seize personnes ñoom ñëpp sama kanam lañ deewee ñoo ngi nii. seize personnes yooyu dee intéressé na ma de anañu. sama kanam lañ deewee ñëpp. sa kanam lañ deewee ñoom ñëpp laa sama kanam. mais seen i mbokk leen jël si. dañuy ñëw paqueté leen jël yóbbu morgue ba sànni si morgue bi ñi ñëpp sama kanam lañ deewee seize personnes. a kon moom waa biko bi ko yaayam doon yóbbu dafa indaale feuille ak bic pour compter nombre de morts yi comme niñ ko waxee rek duñ ko weddi duñ koy tam dëggal gendarmerie ñi ngi étudier piste boobu noonu di wéyal enquête bi te am nañ yaakaar ni lépp lu ci rot dañu ko xabaar Sénégal yëpp xam mais comme ni ñu amee habitude di ko defee rek baax nañu ci dem xel mais aussi sutier les responsabilités parce que ak situation bi nii responsabilité partagée la ku ci nekk da ci am part da ci am wàll. ñoo ngi xaar fu wàllante di mujj ki bëtam ak investigation yi nga xamante ni mi ngi continuer lenn kese mu ñu tiital mooy ñi nga xam ni dañ doon agressé doon ay délinquant te ñu téye leen woon ci centre yooyu noonu après de descente gendarmerie ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon ñooñu fan la ñuy mujj ndax dañuy nekkat ay agresseur wala nekk ci mbedd mi di dafay ñaaw def loolu aussi question bu rëy rëy la li ci kanam rawli bët kon jàngatu tay bi loolu woon ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen